Euh, Katakel diggante Katakel la ak ba jafe-jafe bi moo doon dëkk yi nga xam ne ñoo nekkee ci boor bii muy Taïba muy Taïba Njaay Kunda ba Ndéem Njaañeen ba jaata mbëlëb yëpp ci biir commune Kàccoor lañ dëkk te mën ñooy dem Kàccoor faju ji gàllankoor bii dal ñu nag yàgg nañ koy joytu ay xat mën nañ koy xam xamuñ ci benn résultat muy suñu yoon wii ni mel nii bëgg nañ ko ñu ci dimbale bu baax ndax fii fi ni ne nag bëgg nañ ko ñu ci dimbale bu baax ñun na fi ne lu de suñ pas-pas ñun gox bii tubu waxuñ nii la waxuñ naa la waaye fas nañ yéene man ci chef de village laa fas nañ yéene pour def programme boo xam ne boo dem dëkk boo xam yaa ngi ne fii suñ karto daañu ko dajale def ko ci benn takk téye ko ku ñu dimbale ci lii dégg nga maam yaa ko moom waaye di waxit ci xol bu fees waaye du kàddu goo xamante ne kàddu gu yaradiku la su ñu neexoon sax ñu def ni ñëpp def lu ñu neex yëng mais ñun dañoo yar waaye nag dafa am àpp lii ma leen bëgg a wax nii mooy bépp jafe-jafe bu Sénégalais am ñun ñëw ci ëppale mooy lan muy yoon waxuma la jëlal naa courant ñun suñ suñ dëkk poto tàkku fa kontal dëkk yi six villages yoo xamante ne amul benn waxuma la yeneen yi de six villages yoo ne poto tàkku fa nga nga ñëw yoon wii nii man man Baye Niass maa ngi nii barki démb maa fi njëkk a jaar ñëw sama oto mënta jàll far mu ngiroo fi yëgu ma woon sax dagg parce que su ma teeloon heure bi ma daan jóg su ma ko jogoon su ma ñëwee musiba laayam maa ngi ñaan li laay wërsul yi population bi dëkkee fii am na lu ñuy séntu ci kanam mooy lan mooy vote président yoru ñaari carte tudduma keneen de président yorul ñaari carte carte ba mu yor la Baye Niass mi yor la keneen yor am nañ am fullaay téye suñuy carte su fekkee su fekkee ci réew mi citoyen la comme ñëpp mais dafa am luñ loo xam ne dañ koo moom yalwaanuñ ci kenn dañ koo moom nañ ko jox te yàlla tax muy lan yoon courant ndox hôpital ñun nag lii suñ priorité mooy yoon courant amuñu si dara mu leen wax sax cuuñal nañ ñun amuñu courant amuñu yoon maa leen dénk li war yéen askan wi xam leen li ngeen doon duuñu ay xar duuñu ay bëy ay citoyen comme ñëpp ndax damaa war a njëkkee su may su may lancé sous lay njëkkee ndax mooy yoon wi tey suñ joxoñee suñ gëstoon war nañ koo gis dafa war a taxaw fii dañ ko fi indi pour mu soweel doomu aadama yi nekk fii ñëwuñ pour mu soweel doomu aadama yi nekkul euh, euh, katakel wala kàccut dafa war a représenté présent la war a def wala mu yebal ndaw ñëw xam li ñuy jooy ak li ñuy métti ñu door a dem ci maire mais dafa am loo xamante ne dafa mel ne dañuy fooyee doomu adama yi autorité la mais dañ ko war a joxoñ baaraam dafa war a taxaw gunge ñu ah dafa war a taxaw gunge mais dafa am loo xamante ne dafa mel ne ñun bokku ñu nit buñ la falee di yëkkati xaalis di la fay ngir askan wi ngay toog di leen di liggéeyal da ngaa war a ñëw bu ñu amee jafe-jafe ñëwal taxaw président ne leen maa seen ginnaaw maa ngi leen jàppale waaye nag fii la sama kattanam monsieur le maire monsieur le maire gisuñ moom boppam. ñun bañ ko wóoloo fal ko ba léegi wallaahi lancim gisuma benn kilo ciment boo xam dañ ne lii monsieur le maire moo ko représenté diggante kàccot ak muy te loolu wax dëgg yàlla ruslu na te euh, mi ngi bëgg a jeex waa xanaa moom li indiwuñ koon pour liggéey. monsieur le maire dafa wara a président dafa bu mënu dara na ñëw jébbale boppam ne mënuma dara. ñun yoon bi lañ am bu ñé dem kàccur fii la jaar parce que ay jigéenu wérut mom képp na jigéen yu wérut ni mel métti lay dundé fi ay nit nit ñak nañ fi seen bakkan dañuy dem wara matu ji ñi dee Yon yoon bi té lool dafa ñaaw yoon bi laal lañ bëgg ngeen défaral ñi bu ñé dem katikal dañuy wallu ñun amuñ mësi amuñ lenn fii la ñuy wàllu ñun suñ lépp ketikal la bu ñuy dugg ci ketikal la ñuy dem parce que buñ jaaree wut fii dem dugg ketikal duñ togg parce que suñ lépp ketikal la kon yoon bi nag war nga ñu see jàppale na yaakaar na baykat bu demee ba yàlla ji taw mu xëy tal ay presse yaakaar naa ne joomi na ndax bu suuf bi baykat day yittoo dem si tool yi yóbbu matériel liggéey tey ñit ñi ñëm nag yàlla dénk nañu euh, nawet fu mu ni commencé nañ ko si bisimilahi rahman yàlla nañ ko yegg si bisimilah euh, alhamdulilahi rabbi mais nga ji muy bi dafa ñoo sonal li ngay gis ni askan yi daaw ñoko fi liggéeyal juroomi reewmi politiciens duggul fi nay leer li suñ juroom suñ ñaar dërëm lañ fa dajale bari gu yi ñoko ko suñ bop dagal ko suñ bop bari jëlé ko fé lañ ko jëlé fi ak andi ko fi war nay mat 1 km ñi ñoo monté ko suñ bop pour sauver suñ bop fee ne si kanam amana benen pont bo xam pont bant la ñin ci gàttal ñun moom nguur gi mom manam jëmmé nguur gi ñin gisuñ suñ bop depuis fukki at yi mais Taïba nak mom day dëkk bo xamné ne duko présenter pour ni région Kaffrine bii moom diggante moo kàccut ndax fi commune bi 46 villages la mais ñin yalla dañu denk ñin heure bu ne ñi ne Saloum Macky Sall moko mom mais Saloum li lañ jiñ Macky Sall li lañ jiñ Macky Sall am deet mais tay yoon bi xolof ne tay yoon bi tay lim lëkkale mo bari boo bëgge dem Katakel Taïba Ndiaykunda muy njañan dem beulep dem ba ñaw Fara dem ba Maabo dem ba euh, Fay sokon man ngay jaar ci yoon bi ndax nak day yoon bo xam tay soxol nañ ko ñu ko dimbele duñ wax nak ku ñu si dimbele de dañ ko wara liggé ndax li irsan la ndax tay ñun mat mat ak manqué ñoo ànd doomu aadama da ngay wér mais da ngay wéré di tey fii ku wéré di woon tey tey jii wallaahi ansi ni ñu jaarale sere bi fii noonu nga ñu fee jaarale ndax dañ lay yëkkati jigéen la ndax xam na ab malade du naaw te amuñ aliko bu ñu mën a yóbbu hôpital ba te tali bi lu may neex diggante Nganda Kaffrine lu may neex ne ñun Macky Sall ñun gisuñ suñu bopp ñun bu dee lajum mën nañoo jaay ñun bu dee lajum mën nañoo jaay te bu dee ay gàllankoori bakkan ñeenti nit ni nañ si yoo xam ne man maa ko man sama karam ñaar ñi ñi daaw daaw la si tabaski bi dañoo jógee ko seen village ñëw doon ñaan si ndéwénal si leen dugg si xur yu ndox mi yóbbu leen toog nañ 24 heures ñu doon la ñuy gis li may ni preuve la xam ne amul lu jaral maanaam may sosal nit ñeneen ñi daaw lañ jiyaan ñoom itam muy 4 personnes boo ko doon oto yi nga xam dañ fiy daanu te at bu am ay ziar yu mag yoo xam ne ñun mën nañu ñàkk a présenté suñu bopp mais du ndox du yoon du courant du poste de santé du magasin du casse tout bi li ñeen lancé bariwut ñun suñu carte d'identité lañ yor dañ koy dibi nag ba mu normal ñu dugal suñu kër toog ku ñu jox lu ñu bëgg ñu jox la ko ku ñu ko joxul ñun pare nañ si yow